ñuy soññ rek waaw nañu génn nañu génn mu mel ne wax. waaw taxaw mbooloo mi parce que bu defee ñu àndandoo ci jërëjëf bu baax ci jërëjëf Serigne Touba bu ñu ko tàmbalee mu doon benn kàddu boo xam ne dañu ne merci trop incha allah. Dimba Sol. jërëjëf jërëjëf Seex. jërëjëf Ahmadou Bamba. jërëjëf Xaadimu Rasuul. jërëjëf jërëjëf Seex. jërëjëf Ahmadou Bamba. jërëjëf Xaadimu Rasuul. jërëjëf jërëjëf Seex. jërëjëf Ahmadou Bamba. jërëjëf Xaadimu Rasuul. jërëjëf jërëjëf Seex. jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasul jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadim Rasul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadu Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadu Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadu Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadu Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf Ahmadu Bamba jërëjëf xaadim rasuul jërëjëf jërëjëf Seex jërëjëf ah.

bamba ko moom. jërëjëf Serigne Touba. min réew. bamba ko moom. jërëjëf Serigne Touba. réew mi bamba moom. kii ko moom. jërëjëf Serigne Touba. min réew. bamba ko moom. jërëjëf Serigne Touba. réew mi bamba moom. kii ko moom. jërëjëf Serigne Touba. min réew. bamba ko moom. jërëjëf Serigne Touba. réew mi bamba moom. kii ko moom. jërëjëf Serigne Touba. min réew. jërëjëfay sëriñ Touba réew mi Bamba mooy jiite moom jërëjëfay sëriñ Touba ñun réew Bamba moom jërëjëfay sëriñ Touba mi Bamba mooy jiite moom jërëjëfay sëriñ mi Bamba mooy jiite moom jërëjëfay sëriñ Touba mi Bamba mooy jiite moom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 Amérique Afrique fu nit mën a ne nay jàng téere bi ak hadiis ndigal